Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, chers collègues, honorables députés, c'est avec beaucoup d'attention et d'intérêt que j'ai suivi vos interpellations, vos questions, vos suggestions et vos critiques, parce que c'est toujours utile pour nous d'avoir euh, le ressenti des représentants du peuple que vous êtes et de pouvoir dialoguer avec vous sur des questions qui nous concernent tous. Je vais d'abord essayer de fixer le cap pour notre pays. Parce que je pense qu'il y a des questions sur lesquelles nous tous, nous pouvons avoir un regard objectif, évaluer et dire quels sont nos acquis et quels sont les défis que nous devons relever ensemble. En 2003, notre pays, lors de la conférence euh, internationale sur l'eau qui a eu lieu en mars 2023 du moins, aux Nations Unies, a honoré le chef de l'État, le président Macky Sall, d'un prix leadership dans le secteur de l'eau en mars 2023. Plus récemment, lors de la conférence africaine sur l'assainissement qui s'est tenue en Namibie du 4 au 11 novembre 2023, à la date du 9 novembre, notre pays du prix Country Achieving Award dans le domaine de l'assainissement. Je pense que de la même façon que nous nous réjouissons quand nos équipes nationales remportent des trophées, nous devons ensemble, en tant que Sénégalais, nous réjouir lorsque notre pays remporte des trophées dans d'autres secteurs d'activité, comme c'est le cas en 2023 dans le secteur de l'eau et comme le cas en 2023 dans le secteur de l'assainissement. Surtout que pour l'assainissement, c'est les pays africains qui se sont réunis et qui disent que le Sénégal mérite ce prix. Donc ce sont nos pères, ministres des autres pays, qui se sont réunis pour dire que le Sénégal mérite ce prix. Et dans le domaine de l'eau, c'est pareil. Et pourquoi nous avons eu ces résultats-là C'est le fruit de beaucoup d'investissements, de beaucoup d'efforts qui ont été faits dans ce pays. D'abord, la vision est claire dans le secteur de l'eau, comme dans le secteur de l'assainissement. décliné dans le plan Sénégal émergent d'abord et puis après dans la lettre de politique sectorielle pour l'eau et l'assainissement, où notre pays a fait des études prospectives, je l'ai dit, le rapport l'a repris. Jusqu'à présent, on avait des programmes de rattrapage. À moment donné, on a dit il faut qu'on ait une vision à long terme. Nous avons effectué une étude sur la sécurité de l'eau qui permet de recenser l'ensemble des besoins de tous ordres dans le domaine de l'eau potable, pour l'agriculture, pour les autres services, à l'horizon 2050. Quelles sont les potentialités que nous avons en eau souterraine, en eau de surface, en eau renouvelable, pour faire face à ces besoins Et c'est sur cette base que nous sommes en train de bâtir des plans d'investissement, le plan directeur que nous avons dans l'hydraulique urbaine, dans l'hydraulique rurale, et de suite. Donc la vision est claire. En même temps, nous avons des investissements. Aujourd'hui, si nous disons le taux d'accès à l'eau en milieu urbain est de 98,7%, c'est une réalité. Le taux d'accès à l'eau en milieu rural est de 96,9%, c'est une réalité. Et je le répète, le taux d'accès à l'eau, ce n'est pas celui qui est privilégié et qu'il peut ouvrir sa chambre à coucher, passer dans ses toilettes et avoir l'accès à l'eau. Il y a un critère au niveau international pour calculer le taux d'accès à l'eau. On dit que on a accès à l'eau quand nous avons une quantité résonnable d'eau dans une, sur une distance acceptable. Et il est dit que quand il y a une source d'eau à un kilomètre au plus, on a accès à l'eau. Maintenant, le reste, c'est un problème de branchement. C'est la volonté du ménage qui va se brancher à l'eau. Deuxièmement, la quantité d'eau raisonnable est estimée à 20 litres par jour et par personne. la raison pour laquelle notre pays a ces... Là, parce qu'il faut une base internationale pour pouvoir comparer les taux d'accès à l'eau. En ce qui concerne l'assainissement, pas à près de 90%. Nous sommes à 88% à peu près en milieu urbain. Le taux national est de 74%. Au niveau Au niveau national, la moyenne nationale, 74%. Au niveau rural, on est à 62,2%. J'en profite pour évacuer une question la question de l'assainissement. Vous savez, l'assainissement peut être collectif. Où on a, dans un ménage, on a des toilettes et c'est une canalisation qui évacue l'eau niveau de la rue et il y a des collecteurs qui amènent l'eau au niveau des stations d'épuration. L'assainissement peut être autonome, individuel, où on a des toilettes, on a des fosses septiques, il faut qu'un camion vienne vidanger pour amener l'eau au niveau de la station de traitement. La différence entre les deux assainissements, c'est que là, le transport est assuré par une canalisation et là, le transport est assuré par un camion de vidange. Si notre pays a eu ces résultats-là, c'est parce que nous avons allié en même temps l'assainissement collectif dans les centres où la concentration humaine était forte et l'assainissement autonome individuel là où les habitations sont dispersées, où le réseau n'a pas encore été là. Et pour ce qui est du milieu périurbain dont on parle, nous avons eu des modèles de fosses septiques qui ont été conçus pour ne pas absorber la remontée de la nappe. c'est euh, dimanche que j'ai été à Ndiaganiao lors de la journée mondiale des toilettes. Je vous assure que la famille que j'ai visitée était très contente de dire que l'État leur a permis de fausses sceptiques qui permettent à une famille de pouvoir rester 10 ans ou 15 ans sans pour autant vidanger la fosse, parce qu'on a deux fosses sceptiques. une première fosse septique, une première fosse septique qui fonctionne, qui reçoit l'eau, et l'autre est fermée. Maintenant, quand l'autre fosse septique est, est, pleine, la première est pleine, on la ferme et on dérive l'eau sur l'autre. Pendant trois ans que l'autre va recevoir l'eau, il y a une décomposition des matières organiques qui demain peuvent être utilisées pour l'agriculture. C'est ce type de solution-là que nous avons qui valent la visite Hier, j'étais à Abidjan. Je suis rentré cette nuit. Avant-hier, je suis parti à Abidjan. Je suis rentré cette nuit d'Abidjan. Mon à me pour dire que le 29, il envoie ici une mission pour s'inspirer de l'exemple du Sénégal dans le domaine de l'assainissement. C'est ça qui fait que de, quand même fiers de ce que nous faisons en reconnaissant maintenant pour les faire. pour les euh, résoudre. Maintenant, je vais peut-être, euh, compte tenu du, du, du, rang et de son statut, répondre au président de groupe parlementaire, réagir d'abord à ce que les deux présidents ont eu à dire. Sur le code de l'eau, le président Abdoumbaou a raison. On a un code de l'eau qui date de 81. On était dans une phase de réécriture du code de l'eau, de le réviser. Cette phase est en cours. Nous avons reçu les observations sur le projet de tout, pratiquement de tous les départements ministériels. Nous devons les consolider lundi ou mardi. Euh, mes services m'ont dit que mardi, j'aurai la fiche qui indique les observations de l'ensemble des ministères. Et en ce moment-là, le code de l'eau, le nouveau code de l'eau, le code de l'eau remanié sera envoyé à, au, au du gouvernement pour examen au niveau de l'État. La question du chevauchement entre les directions nationales et les entreprises de tutelle que vous avez soulevée aussi, je pense, ne se pose pas tellement. Il peut y avoir toujours des conflits qui sont réglés au niveau du ministère, mais ne se pose pas tellement. Parce que la structure du ministère, au niveau ministériel, on s'occupe de, des études stratégiques, de la vision, des orientations. Les structures opérationnelles s'occupent de la mise en œuvre des projets et des programmes. Donc aujourd'hui, la direction de l'hydraulique n'exécute pas tellement de projets. Elle des études. C'est la SONES qui s'occupe, la et l'OFOR qui s'occupe de réaliser les, les, travaux. Voilà à peu près. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, vous voyez que dans le budget du ministère, 91% c'est l'investissement. Parce qu'au niveau du cabinet et des structures nationales, on n'absorbe pas beaucoup de Sur le Conseil supérieur de l'eau, vous avez raison. Je pense que c'est la lourdeur de son fonctionnement qui fait qu'il ne s'est pas réuni. Cette question sera traitée dans le nouveau Code de l'eau. Sur la réforme de l'assainissement, nous n'avons pas pris de décision. Nous sommes en train de faire des études. Cette réforme ne sera adoptée que si les études montrent qu'il y a une viabilité sociale, une viabilité économique, une viabilité financière, autant au niveau de l'ONAS que des structures privées qui vont gérer ce, ce, ce, ce volet assainissement-là. Mais en réalité, à date en tout cas, parce que vous avez une crainte que le secteur privé euh, ne prenne en charge cette réforme-là, si jamais il y a introduction du secteur privé. En tout cas, à pour ce qui est de l'assainissement des bouts de vidange, parce que nous avons des stations de traitement des bouts de vidange qui ont fait l'objet de délégation de services publics. L'ensemble de ces stations de bouts de sont aujourd'hui gérés exclusivement par des sociétés sénégalaises. Bon, pour le secteur de l'eau, vous avez de Suez et cinq délégataires. Suez, ce n'est pas Suez qui gère, c'est Sen'Eau qui gère. Sen'Eau, l'État du Sénégal, enfin la partie nationale, a 45% du capital. Suez, qui est le technique de référence, a 55% du capital. En ce qui concerne à part la société Aquatech, où il y un actionnaire euh, canadien avec des Sénégalais qui sont à égalité pratiquement. L'ensemble des autres délégataires, ce sont des sociétés sénégalaises qui les, qui La maîtrise des eaux renouvelables. Vous l'avez évoqué, Monsieur le Président Birame Souleye Diop. Je voudrais dire qu'on est complètement dans cette dynamique, à plusieurs niveaux. D'abord, le Pléferlo va permettre de mobiliser 530 millions de mètres cubes. Le Pléferlo, en principe, c'est une question de, de, de semaines ou de mois. Le dossier est au niveau de la, de la Chine qui assure le financement, de Exim Bank Chine qui assure le financement, mais tout est terminé, normalement. 530 millions de mètres cubes. Le Nanija Bolon, qui va permettre, qui va impacter Kungel et dans une deuxième phase va impacter Kumpentum, a démarré. Le contrat, les, le, appel, les appels d'offres sont en cours, euh, l'ensemble des études sont terminées, mobiliser 46 millions de mètres cubes pour mettre en valeur 12 000 hectares. Nous avons le bassin versant du Djikoy, Là aussi, nous avons des manifestations d'intérêt. Nous avons le bassin versant du Nanija-Bolon, enfin du, du Bao-Bolon plutôt. Là aussi, pour éviter la remontée de la bande salée du fleuve Gambie, nous avons reçu déjà deux manifestations d'intérêt pour le, pour le faire. C'est un coût de 80, millions, 80 milliards de francs CFA à peu près. Nous avons aussi les bacs de, lacs, bacs, lacs de Bakel. Mais nous avons projet stratégique qui ne va pas se réaliser dans les deux ans ou les trois ans. Mais c'est une étude d'anticipation que nous avons eu à faire. C'est un transfert interbassin entre le fleuve euh, euh, euh, du Sénégal à partir de Bakel et le fleuve Gambie à partir de Sambangalou, soit en amont, soit en aval du barrage, qui va permettre d'avoir de, deux amenées d'eau à partir de Bakel qui vont essayer d'arroser l'ensemble du bassin arachidier. Là, nous n'avons pas décidé encore si nous allons faire ces, ces, ces travaux-là, ce projet, mais nous sommes en train de faire les études à long terme pour voir si c'est viable et de le faire. Le barrage de Gourbassi est sur la Falémé. C'est un barrage que l'OMVS doit faire. On a envoyé les requêtes de financement, mais ce n'est pas un barrage hydroélectrique, c'est un barrage de régularisation des eaux du fleuve. qui, qui, permettra de les eaux du fleuve Sénégal plus tôt. Et le barrage de en même temps un barrage de des, fleuves, de, des eaux du fleuve mais en même temps un barrage qui permettre de produire 128 MW d'énergie électrique. J'y étais la semaine dernière quand à Kédougou visiter le chantier qui, qui avance. C'est un barrage que nous faisons dans le cadre de l'OMVG qui de mettre en valeur 90 000 hectares de terre, dont les 40 000 pour le Sénégal. Et sur la production d'énergie électrique, sur les 100%, les 40% reviennent au Sénégal. Les travaux sont en cours Sur le quota du canal du Carrière dont vous avez euh, les 26 mètres cubes secondes, on n'a pas eu le canal du Carrière, temps au niveau de la commission des eaux de l'OMVS, le Sénégal avait obtenu une autorisation, je crois, de 21 mètres cubes secondes. De 21 mètres cubes secondes, que nous avons utilisé en partie pour faire KMS 3. Et pour faire le Préferlo, on a eu une autorisation de la Commission permanente des eaux de l'OMVS qui a autorisé 16 mètres cubes secondes à peu près. Donc c'est avec ça que nous allons faire le Préferlo. Sur le dessalement sociétés étrangères, Sambangalou et tout ça, je, voudrais seulement dire que il ne faut pas voir seulement l'attributaire du marché et dire que l'ensemble des ressources du marché sont pour des sociétés étrangères. Je prends seulement l'exemple de Sambangalou. 400 millions d'euros, 262 milliards de francs CFA. La partie génie civile, c'est 289 millions d'euros. Sur le barrage de Samangalou, nous avons dit que la, le contenu local doit être de 30% minimum. À date, j'ai tous les contrats qui ont été signés avec des sous-traitants sénégalais, c'est 30 Les contrats qui sont en cours de signature, négociés déjà, sécurisés, portent la, le, la part nationale à 40% à peu près. Voilà. Et c'est la même chose aussi pour les autres structures. Il y a l'entreprise qui gagne, il y a maintenant que cette entreprise-là fait travail, on donne un contenu local à cela, aussi bien en termes d'emploi que tout le reste. Donc je voudrais vous rassurer sur Maintenant, le président Abdoumbaou, vous avez raison sur la réforme. La réforme est bonne. Je pense que de façon stratégique, on a eu à gérer les forages avec des associations communautaires, mais ces associations-là ne peuvent pas, quand on gérait le forage qui servait un village, boo xam ne bii dëkk bi lu mat euh, juróomi téeméeri nit wala junniy nit ñoo fa nekk dëkk yi di màgg léegi communes yi di nekk ay fukki junniy nit ëllëg ñuy nekk ay ñaar fukki junni nit wala dara xam nga duñ ko mën a gérer de la même façon donc il faut professionnaliser gestion bi ci loolu la ñu nekk léegi nag dafa mu nekk dafay am ay jafe-jafe bien sûr ay jafe-jafe yoo xam ne yi ci entreprise bi la ay jafe-jafe yoo xam ne yi tamit ci ay intérêt yoo xam ne yi amoon na à la base ñu leen di combattre ak aussi ay ñoo xam ne ñii aussi dañuy yàq parce que mbirum carburant bi manqué ci forage yi aussi mën na cee wax lu bare bare bare bëri parce que soo jëlee ay am na ñoo xam ne ñi jub nañu bien sûr ñoo ëpp mais am na ñoo xam ne ñi soo jëlee cinquante litres carburant jox leen ko pour ñu def ci forage bi xëñ na dana am dix litres wala vingt litres ci wàññeeku wala dara noonu yëpp mi yooyu yëpp mi ngi ci biir kenn mën la wax yëpp daal waaye waaye daal mbir yi daal dafa dafa doy waar voilà yooyu yëpp mi ngi ci biir loolu yëpp nag kenn mënu koo teg ci ci kiw réforme non non parce que euh, xam nga les villages sont éloignés euh, soo joxee ni ku yore bële benn forage fële di ko def donc yooyu yëpp mi ngi moo tax moo tax le programme qu'on a aujourd'hui par exemple dans le dans la région de Tambacounda dañu am programme solarisation pour solariser les forages en ce moment la le risque bi ñuy am ci utiliser carburant bi dana wàññeeku bu baax a baax a baax ci loolu la ñu euh, ci loolu la ñu nekk ci ci mbirum réforme bi mais la réforme moom et est bonne dans son principe maintenant bi ñu defee rapport bi li ñu wax mooy que war nañoo dugal collectivité locales yi ci biir euh, donc on est en train de travailler avec le fond FONSIS ñu ngi liggéey ak FONSIS pour seet su ñuy gérer ndox mi fenn est-ce que maintenant les collectivité territoriales du ñu ñëw maintenant bokk ci capitalu sociétés yi nga xam ne ñoom ñooy gérer ndox mi là c'est une direction bu ñuy jël ci réforme bi pour que mu am une meilleure appropriation réforme bi pour nit ñi yëg seen bopp loolu la ñu loolu la ñu bëgg daal ñu ngi ciy liggéey euh, jox nañu FONSIS benn mandat pour ñu liggéey ci ci ci loolu maintenant li ma euh, wax naa sànq donc li nga xam ne suñu réew bàkk nañ ko kañ nañ ko ci loo xam ne lii jógewul ci ñun liggéey bi yëpp matul liggéey bi dana continuer di am parce que askan wi dafay continuer di yokk li ñu soxla ci ndox li ñu soxla ci assainissement day continuer di am waaye dama bëgg ñun Sénégal de la même façon su fekkee ne dem nañu defi sport defi football wala dara gagné coupe d'Afrique wala avancé ci coupe du monde nit ñi ni ñuy ni ñuy kontaanee ni ñuy kañe seen dëkk ni ñuy tiitaroo seen dëkk ñu tiitaroo ko tamit ci yeneen secteur su fekkee ne àddina bi ak wala Afrique kañ na suñu réew ren jii ci 2023 ñaari yoon kañ nañu Sénégal mars 2023 conférence internationale des nations unies sur l'eau ñu jël benn raaya jox ko président Macky Sall leadership taxawaayam ci mbirum ndox mi kenn laaju ko moom sax xamul woon ne dana ko am parce que demul woon ci daje bi man maa recevoir prix bi xaj na su yëgoon avant dañ ko koy jox xaj na même dana dem ci conférence mais demu ci weer wii mois de novembre 2023 fële ci Namibie mu am conférence bu mag bu réewu Afrique yépp séq ci mbirum assainissement juróom ñeenti fan ci conférence boo xam ne bii ñeenti fan la commencé dem ba fukki fan ak benn man demuma woon ministre de l'assainissement parce que xaw ma woon sax ne ñi ngi préparer raaya pour Sénégal le 9 ñu jël raaya encore jox Sénégal ci liggéey bi nga xam ne def na ko ci birum assainissement mais loolu pour Sénégal yépp la prix boobu ñu ma jox ma def ko sama bureau su ma fay jógee dama ko fay bàyyi loolu loolu li nga xam ne moom la ñu liggéey moom la ñu def waaye nag am na encore liggéey du du du mat li nga xam ne def nañ ko ci forage looloo tax tey jii soo jëlee Sénégal ñu ne taux d'accès à l'eau ci millier rural bi 96 virgule 9 pour cent la milieu urbain 98 virgule 7 pour cent loolu li ko indi mooy investissement yi ñu def ak en même temps extension réseau yi ñu def et tous les jours ñu ngi def ay extension de réseau ci mbirum assainissement eaux use démb ci réunion bële ma dem Abidjan ci laa dégg ne ay réew yu mag yoo xam ne ñi ngi Afrique de l'Ouest nekk ak ñoom xam nga soo nekkee ministre laa doo bëgg di di wax turu réew seen capital amul benn station de traitement d'eau use je n'ai jamais imaginé ça mosuma xalaat ne benn capital dana am bañ a am station de traitement d'eau usée li ñuy traité yépp dañ koy sànni ci géej gi wala ci dex yi am wala dara donc c'est en ce moment-là que j'ai compris ñoom pourquoi ñuy kañ Sénégal ci li nga xam ne liggéey na ko loolu la ñu def ci assainissement mu génn maintenant dakaar ñu def programme des dix villes ay villes yoo xam ne masul am assainissement ay maatam ay Tambacounda ñu dem fa bien sûr cinq quartiers la ñu def mais li ko indi ci cinq quartiers yooyu foo xam ne fi amuloon dara moo koy indi ci yeneen quartiers yi desul fële ci Tambacounda ak ak yeneen ci mbirum assainissement eaux usées donc suñu réew def na ci ay jéego yu mag mu maintenant assainissement eaux usées yu ànd ak ak fosse ak yu àndul ak fosse donc ci loolu lañuy liggéey ci mbirum ndox mi tamit plan décennal vraiment fan la xaalis bi dugg loolu duma ci dellu si ku ko bëgg dell na nga xool rapport bi nga xam ne assemblée nationale def na ko ay photo mi ngi ci député yu photo ci ci kanam ay regard fotow ci kanam ay tuyaux pour def ko koo xam ne kii politique taxul nga jóg nga bëgg dëgg rek soo gisee rapport boobu da nga xam xaalis bi fan la dugg lan lañ ci def ak ci ban dëkk lañ ko defee. li ñu mënoon a wax bari na question yi bari na mënoon naa tontu ci lu baree baree baree bari comme ni ma ko defee soo leen bëggee mën naa def ay écrit wala aussi marqué disponibilité pour recevoir député yi parce que sama collègue certainement am na loo xam ne lii. war na ko ci yokk moom tamit ci mbirum maintenant inondation yi defe naa ne sama suñu camarade euh, enfin suñu compatriote euh, Ibrahima Diop xañ na dafa juum ci ni muy waxee parce yenn saa yi nga wax juum parce que su ne sénégalais yi mënatuñoo ñëw mois d'août parce que suñ ñëwee dafay am ay inondation sénégalais yi nekk ay France ak yooyu xam naa loolu waxu juum la rek ndaxte man de en tout cas bi ma juddoo Kër ma Madiabel ñu yaree ma Tëngéej Tëngéej am ndox Tëngéej am leneen ah am woon benn jafe-jafe pour di dem Kër ma Madiabel fi sama papa sama yaay nekkoon nga xam ne xëy na amul woon même commodité yi di fa nekk et je pense que yaa a beaucoup de Sénégalais yoo xam ne yii du ñu seetle ne ñoom fële suñ fa toogee du ñu am inondation waaye seet si seen papa ak seen yaay pour am inondation inondation dana tax ñu ñëw loolu moom defe naa ne du lu mën a wax daal xëy na nag dafa juum ci wax bi waaye moom loolu moom kenn mënu ko jàpp daal